yéen a ko doon xaar yegsi na muy lu bees tak seen émission li si marché bi dammee fii si Safina bi di émission boo xam ne day dugg ci ruqu-ruqaan yi marché yi jaaykat yi bàyyiwul kenn ba tax na yéen mbokki annonceurs yi yéen ñi nga xam ne jaaykat ngeen ngeen di am seeni i produits ngeen bëgg ku leen koy jëndal wala fu ngeen ko mën a étaler wala fu ngeen mën a waxee li ngeen di liggéey ci fan ngeen koy amee fii ci Safina ak seen émission li ci marché bi ànd ko seen xarit seen sista ñi nga numéro bàyyi noonu di 77 207 64 38 fii ci Safina lépp fi lay xewee jaa